ndax bu ñu nee mbooloo mi yaatu na ci àdduna bi waaye fu sëriñ abi bu teew ànd ak jëwrinam yi dafa mel ne waa Touba ci kanam gépp teew nañ fi bu ñu teewee sa kanamit it ni ñu jàppee ne waa Touba kanam gépp teew nañ noonu lañ jàpp ne dañoo teew ci kanamu Cheikh Mahamadul Fadal bët yi nga xam ne bu fi nekkoon kenn ku ne ci ñun moom la koy xool moom lañ lay xoole te war nañu ne jataayam bii mate nga ko yàlla nga yàgg lool nag te lépp loo mébét ci moom yàlla na ko mot ci sa sago ñëwug tey gi dañoo ñëwoon di siyaare ak di la leeral li nga xam ne Touba ci kanam ngi ci xañ na sax lu ci ne rek xam nga ko ndax ni la sëñ Touba ñore ak ni la dëkk bi ñore ba tax na foofu waaye ruur ab gopp moo xam daa gont wala mu xëy wóor nañu ne xam nga ko waaye nag ginnaaw nit buñ koy sàmmaloo war na saa bu jafelee ñëw ci borom jur gi ne ko nii laa yendoog jur gi liggéey bi it bañ ko tàmbalee yàgg na liñ ci jot def yàgg na lu jëm ci wàllu daara yi lu jëm ci social bi lu jëm ci wàllu ndox mi lu jëm ci wàllu leeraay dëkk bi lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram muy poste de santé yi lu ci ne rek Touba ci kanam mi ngi ci waaye nag daaw dafa am liggéey bu am solo boo xam ne da koo defoon bi ñuy toll ci waxtu wii muy ku ne xam ne ne fi mu ne Touba daanaka euh, yooyu amatul noor ak nawet waxtu wu jot day am rek loolee saabu bu euh, nawet buy waaju jub dañuy fas yéene pompe dëkk bi ba wàññi yooyu bu ñu fa mën mënta jëlee lépp waaye nag ku ne xam na ne jamono yii ñu toll màggal gi day sës ci nawet bi lool te dëkk bi it ni mu ni mu bindoo noonu ko sëñ Saliou doon waxee dafa bari ay mbedd yu mag yoo xam ne yii ay xur la yii barabi ndox la yoo xam ne daanaka kenn mënu fee jaar te dañ fee war a jaar ndax yoon wu nekk ci ay ay nit la jëm ñamu jëm ci ñoom ñooy xëyewaat fa ñu jëm ñëwaat ci biir dëkk bi nga xam ne kenn mënu koo muñ ku xëy faaw nga xëy si fa nga gon si fi bi dëkk bi demee noonu nag ci ay taataa Touba ci kanam nag daaw la tàmbale woon ne mbedd yëpp dinañ fexe bay dindi ndox mi pompe ko foo xam ne dafa laaj sëkk ñu sëkk ko ba nga xam ne damaa jëlale ñii ñëw di ay gani màggal waaye ñi fi dëkk rek dinañ ci mën seen soxla loolee nag bañ ko defee daaw gis nañ ci buntu ak njariñ loo xam ne jëriñ na waa dëkk bi ren jii nag dañoo fas yéene yokkaat loolee nga xam ne daaw bu fekkonte ne def nañ fukk ren jii dañoo fas yéene def téeméer muy liggéey bu mag a mag boo xam ne ba ñu demee Cheikh ba Cheikh Mamadou Mountakha ba ba laaj ko ko mu jox nu ci ndigal xamal ñu ne lépp luñ ci def moom lañ ko ci moom lañ ko ci defal ndax xam na ne lépp lu war ci dëkk bi la gën a néew ba ci la gën a mag moom la war kon fu fi waaye xëy rek moom moom moom nga xëyal waaye yéen ñii nga xam ne kenn ku ne fa nga nekk jëwlinam nga noonee ñu demee ci ci moom la ñu fas yéene ñëw seen kanam leeral leen liggéey bi ba fu ñu xëy baa ñu gont fa ñu xam ne seen ndigal lañ fa xëyee seen ndigal itam lañ fa gonte euh, liggéey boobu nag bi mu tàmbalee te ñu woote ko taalibe sëñ Tuubaa yi wuy nañ ci wuy gu kawe waaye nit ni ñu wuysee itam rëy na waaye mooy niñ ko yaakaare woon rek ginnaaw bañ amee seeni ñaan ba léegi lépp lu ñu tàmbali ci kanam ci Touba ci kanam xam nañ ne fu mu egg seeni ñaan ak seenu taxawu ak taaliba yi gis giñ leen di gis ngeen di tudd Touba ci kanam ci seen làmmiñ wala nit ñi mee toog ci seen kanam tudd Touba ci kanam ngeen sant ca gërëm ca xam nañ ne fu liggéey bi egg looloo ko fa eggale ndax bu ngeen ci amuloon aw yoon taaliba yëpp wan ko ginnaaw kon bu ci taaliba yi nekkee seen jëmm yi ko fi bàyyi loolee nag dafa dafa war a tax fépp foo xam ne nar nañ faa xëy faaw ñu ñëw ba ci yéen ne leen fii lañ fas yéene tàmbalee leeral leen ko su ngeen amee lu ngeen di jubbanti ay taalibi leen ngeen jubbanti ñu su dul su loola ngeen ñaanal ñu ñu am ci ndam ndax Sëñ Tuubaa rek lañ ciy liggéeyal loolu daal mooy yi nga xam ne waxoon nañu ba nekk seet ko yëkkati sa kanam te sàkku ñaan bu baax a baax Mbàkke mbokki taalibe waa Touba ca kanam sëriñ Abul Baraka mi ngi leen di nuyu bu baax di ñaanal sëriñ Touba sëriñ Muntaxa yàlla gën ko fee yàggal te mu gën a wér di jiital ci nuyoo bi sëñ bu Mbàkke mi di rakkam di léppam jël lépp teg ko ne doonub taalibe ci moom te fësal ko te doxal ko ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp xàmmee na ñëpp waaye bu limee da matal sëñ bi nee sant na leen bu baax a baax nee na li ngeen def de rafet na ci moom lool waaye sëñ bi nga xam ne mooy sëñ tubaa sëñ Mountakha ba mu leen joxee ndigal ngeen àndi ko sëñ Abibu mi daanaka rek mënoon ngeen a yem foofu xanaa lii da ak rafetal ak ni ko sëñ Abibu waxee rek ndax moom de bañ ko waxee liggéey bi ne ko yaay jiite ci kanam dane dama am kilifa bala ma wax lenn damaa dem ba mu jox ma ndigal su ma joxul ndigal du ma ci wéy loolee firndeel na ko fii kon sëñ bi neen na sant na bu baax eh, lii ngeen def nag lii ngeen di def tamit ab tàmbali te seen yitte ak seen pasteef àdduna bépp fii nu xam nañ ko kon dafay loo xam ne wax ci da koy jafe ndax day lépp day sëriñ bi dara génnul sëriñ bi ndax sëriñ bi amul lu may dëkkam bi amul lu may diine lislaam amul lu may taalibe bi kon lii nga xam ne si am ngeen pas-pas bu def ko sëñ bi nee na xolam sedd na ci te bir na ko ne dara mun leen tey jëm ci kanam nee na fa ngeen bëgg àgg moom mbir mi dana fa àgg ka mu am ñeewante kay mooy kii dund te sunu borom bàyyi kookum xelam mu am am koom lu mu néew néew doon te na fukki dërëm la te amul xelum def ci dara ci liggéey bi kooku la am ñeewante lool ci moom te it koo xam ne si yaa ngi xool ci moom jox na la yitte jox na la jox na la ndigal nga dugg ci liggéey bi sëñ bi kat nee na ñàkk dugg ci liggéey bi mu wóorut ndax liggéey boo xam ne ci sëriñ bi lu jóge di dellu ci sëriñ bi te bokk ci liggéey yi sëriñ bi gën a gën a gën a bàyyi bàyyi xel nee na ñàkk cee def seen seen yitte wóorut nee na mbokk mbokk julli yëpp nañ ci am pasteef nañ ci am pas-pas te fas yéene soobu ci liggéey bi mbir la moo xam ni kat moom maamam kat daana wax ne mbir moo xam ne boo ci jàppee mu dox boo ci jàppalit mu dox nee na ngalawaay jàpp ci muy dox nga def ne yaa koy doxal te sëriñ bi rekk doxal lépp maamam maam Cheikh Ibrahima Fall daana waxe noonu kon nee na nu jàpp ci liggéeyu sëriñ bi muy Touba ci kanam Touba ci kanam moom tur bi moom dafa yéeme sax kenn kenn mënu koo firi xanaa soobu ci liggéey bi rek ànd ko ñoom mm. loolu rek koy firi mm-hmm. sëñ bi sant na leen mi ngi ñaan ci barkab sëñ Tuubaa mi tax ngeen di ko def mm-hmm. yàlla ngeen ci am li ngeen bëgg mm-hmm. te sëñ bi it li mu bëgg ci yéen ndax kat lii rek fi nekk sëriñ bi donga yi donga yi sëriñ bi leneen néew fi kon nag sant na leen na leen mi ngi leen di ñaanal bu ngeen fi dellusi na ngeen am travaux yoo xam ne si day jaaxal àdduna bépp li ngeen bëgg ci dëkk bi mu am nam daal am leen ko na ngeen ko bëgg ci barkeb sëñ Fallou ndax sëñ Touba ngeen ko defal te sëñ sëñ sëñ Fallou mooy sëñ Touba sëñ Muntaxa mi nag moo fi nekk sëñ Touba di sëñ Touba lu mu ànd rek keneen wóor caa len len keneen wóor caa am len lu may sikki sàkk hmm. lu may ànd ci rek te doxal ko ko ko doxal daal sa léppay dox ku ca def leneen rek yàgg caat salaamaaleykum wa rahmatulaay ngir tàllal loxoy sëñ bi ñam amin wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat